fonk na la ba yemalewul ak dara moo tax mu fonk sëñ Maxtaar Sylla mii yebal rakki boppam mu jiitu si ko sëñ Moustapha mi mooy rakkam xamee ko ak moom muy rakkam ci mbokkam ñu lépp muy xaritam ak doomam ju ji sëñ Muudu ak Mor Dagg Sylla ak Sagnang Mbay mi nga xam ne moom mën naa yëkkati kàddu waaye mën naa tontu ndax day lépp sëriñ bi di lépp sëñ Maxtaar Sylla mi bis bi nag barki démb ba tàmbali woon na barki démb ba léegi ndax Serigne Bassirou Mbacké moom sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne mooy porte-parole yoon wi barki démb la ay ndawam ñëw ubbi jataay bi ubbi liggéey bi booba ba léegi ndawam yaa ngi fi ndax ku xam sëñ Makhtar Sylla la xam koo bokk yëpp bis bi kon tàmbali na bu yàgg waaye sëñ Bassirou Khadim Awa Ba ca bëggam lu baax fonkam bokk bëgg Serigne Touba ba lépp lu yëngu ci yoon wi mu jóg moo tax mu yónni rakkam ju baax ji sëñ Moussa ak sëñ ak ñi fi fekk ñëpp bi nga ñëwee nag fekk nga fi sëñ jiili ci sëñ jiili digga sëñ sëriñ Tuubaa diggam ak sëñ Maxtaar benn la ñoom ñaar ñu ànd ànd bu rafet di and te sëñ Tuubaa rek tax mu ñëw at mu jot taxaw bis bi ànd ko ak sëriñ bi ak bokk yi fekk daf suñ bokki Baay Faal ak soppe yi ak xarit yi fekk fi daayira yi ñoom ñëpp ñu ngi fi ñu ñëwoon nag ànd ak sëriñ Maxtaar bis bi waaye ñuy rafetlu nag li nga xam seen bés xaadim aw ma def ko seen bés lu baax la bëgg moo tax mu yebal délégué délégation bi xam naa bu dee suñu saam lay gàtt da ngeen ci yëkkati nee na mi ngi lay nuyu suñu Maxtaar ndax wëllëreem nga dañoo bokk ndeysaan ku foor ci man wallaay dëgg la wallaay ndeysaan waaw waaw bas. wallaay suñu bas xanaa. wallaay wallaay. wallaay ndeysaan wallaay. ma jàpp ko fa mu ko lu mu taxaw sax. wallaay ndeysaan woo ma ne ma naa ko jiitu si. wallaay suba. incha nga ñëw ndax da ko defal daa rëy lool. parce que moom pour ne képp gis nañu si taxawoo. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ñëw chaque wallaay ndeysaan wallaay dafa wallaay ndeysaan wax laa jërëjëf Mbacke jërëjëf sëriñ bi xolam sedd na bég na lool kontaan sëñ Maxtaar ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ne sëñ Moustapha ñoo ngi lay nuyu bu baax di la siyaare ne ak sëñ Muudu sa doom ji nga àndal ak sëñ Mor Dagga ak alaaji Saañ ak ñi nga àndal ñëpp délégation mi nga àndal nee bis bii yow sa ñëw fi nee lu nu neex la ndax atub sëñ Bas Abdou Khadir la nu miinante ñu gis ci yow ab yar ak dal ak bëgg baax ak am ak ràññee nee moo tax ñu fonk la lool booba sax xaw ma woon ni rakk sëñ Bas nga booba xaw ma woon ni yaag sëñ Bas a bokke nii nee ci sag yiw rek ak sang baax laa la fonke woon kon geneen fonkeel da ciy tegewaat ne Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Ba ne day jàmbaar ne tey nun ñi ñëpp di taxawal ay bisi Serigne Touba mën nañoo wax ni ci sëñ Bass Khadim Awa Ba borom journée culturelle bi moom lañ ko roye ne kon nag loolu tënk na lépp